billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel ci seen site internet bi di Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di rafet rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun mbokk yi su ngeen gisee jataay bii nag ngeen xam ne bis ba daa jot jotati na ka daan woote wooteeti na muy ngóob mu am solo moo xam ne at mu jot sëriñ Sidi Mbacke Abdoul Ahad da koy amal ci dëkkam bi ñuy wax Daaru Salaam Bokki Barga waaye nag mu jagleel ko njabootu kër sëriñ Chouaïbou Mbacke moom xaadim rasul ka ca bopp ba di sëriñ Cheikh Say mu jot ci sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdoul Ahad Mbacke mbooleem njabootu sëriñ Chouaïbou gépp nag ñu taxaw ci liggéey boobu fa yéene ko amal comme ni ko sëriñ bi bëggee ba tax na loolu bu ñu tuddee njabootu sëriñ bu xam ngeen ne kii ñu jàkkaar lool muy sëriñ Niis ture moom sëriñ Chouaïbou Touré moom sañ Daam Touré moom sañ Aliou Touré mu mag ma xam ngeen diggam ak sëriñ Chouaïbou ndax buntam ci xaadim rasul mooy sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Chouaïbou mu jot ndigal ci kilifaam muy sëriñ Abdou Samad mbakke moom sëriñ Chouaïbou ci mu war a soññ taalibe yi ngir ñu war a waajal bis boobu yi moo tax tey seen euh, télévision Touba Argentine TV ñëw fas yéene taatan kàddu yooyu muy fas yéene yëkkati kàddu bi fas yéene ko jox rakkam ji nga xam ne macha allah ay kàddoom am na solo lool saa bu yëkkatee ay kàddoom ñëpp bàyyi ko xel ñu koy wax borom baax ñu tuddee ko Serigne Abdou Samad Mbacké kon Serigne Miss ngi nii ñu jàkkaarloog moom ay kàddu war bàyyi ko ngir ci ngóob mi nga xam ne moom la ñu dëgmal incha allahu taala muy daaru daaru salaam bokki barga di tooli Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdou Lahad Mbacke njabootu Serigne bu Mbacke war koo taxawee aljuma jii di ñëw Serigne Niis Touré moom Serigne Souhaïbou Touré jot ndigal ci Serigne Abdou Samad Mbacke kon xam naa incha allah rek dañuy jébbal kàddu gi Serigne borom baax ñu gën koo xam ci borom baax incha allahu taala kàddu yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci Serigne bi moom moo koy yëkkati kon Serigne Abdou Samad bismillah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wahda wasalaatu wasalaamu ala allahu kun fa yakun yaa muhniyan ilaya shaaqa dardiqa wa xabli yi kulla man tabaddaqa lii kunta fil bahri fa sirtu sunduqa hindal hidaaya fa liya wajjax sunduqa barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke Xaadim Rasuul mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fu nu waaye man te jàkkaarloo ak ñun ñoo ngi lay nuyu waaye nuyoo bi ñu ci jiital ak ñaan ñaanal Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbàkke sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko mbalim yéene liggéeyal Seexul Xadim lépp mu def ko te ànd ko ak mbooleem njabootu Seexul Xadim gépp noonu la ñu ñaanale Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa Serigne Cheikh bu Mbacke sunu borom may ko fan gudd loolu ànd ak wér waaye noonu la ñu ñaanale Serigne Ibrahima Touré xalifa Cheikh Aliou Touré barikalla waaye it noonu lañu ñaanale sunu kilifa gi nga xam ne moo toog ni ci suñu wet ñu ëllëg ji niis Touré xalifa Serigne Cheikh bu Touré yàlla na ko sunu boroom yàggal lool yàggal fi kilifaam gi nga xam ne moo waral toogaay bii muy Serigne Abdou Samane Mbacke moom Serigne Souhaïbou mbokk yi ginnaaw bu buñ leen nuyoo ñu leen di jotal ay kàddu yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci ndigal muy ndigalul Alaaji Serigne Niass Touré mii di xalifa Serigne Souhaïbou Touré mu jot ndigal loo xam ne ma ngi jóge ci Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke xalifa général kullu murid waaye wàcc ci Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad waaye mu jox ko. rakkam jëwrinam di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa Serigne bu mu wàcc ci mbooleem njabootu Serigne Souhaïbou gi yëpp yegsi ci moom mii nag jóge ci kilifaam muy sëriñ Abdou Samane Mbacke moom Serigne Souhaïbou Mbacke xaadimu rasul mu jox ko ndigalul li nga xam ne daana ko ko jox at mu jot ci waxtu yi bu masaana jot muy ndigalul bu accès ci ngóob mi nga xam ne moom lañu def ca Daaru Salaam bukki barga ci tooli Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ngóob mi nag ñu jàpp ko la 14 octobre 2017 di samedi bi ñu jëm euh, ajjuma bi ñu jëm nag di la 13 doon départ bi sëriñ bi wax ne woote bi dañu koy wootee nañ ko daan wootee at yëpp tàmbalee ko fii ci Touba ji nga xam ne fi la sëriñ bi nekk Touba nag sëriñ bi nee na mi ngi ci jiital jëwriñ ji nga xam ne mooy jëwriñ ji nekk fii te nekkal ko fi muy sëriñ Alé Der ak sëriñ Pape Thiam ñu soññ taalibe yi nañ ko daan defee ñu defee ko noonu waaye it muy soññ Serigne Khadim Touré kennal Serigne Touba ak mboolem waa ahlu kennal Serigne Touba bi yëpp ñu def nañ daan def daje fii ci kër Serigne daam Touré gii ci wetu jumaa ji ñu départandoo àgg songu liggéey ba nañ ko daan defee ñu defee ko ni Serigne bi nee na woote bi it mi ngi woo nam ci daan woo ñëpp li ko tàmbalee ndànd Serigne daam der ndànd Serigne bi nee na mu ngi koy woo nam ko daan wooye moo jëwriñ mbooloo ma nekk foofu yëpp. di woo sëriñ daam der gëti Omar ak mboolem waa gëti gi yëpp di woo euh, waa ñuuxul bay yëpp di woo euh, waa pëlen dëdd pëlen dëdd nag sëriñ bi mu ngi cee tudd sëriñ Mandaw Samb jëwrin ak sëriñ Baye Gora Fall jëwrin ak sëriñ Abdou Diop ñu yóbbaale mboolem waa pëlen gi yëpp sëriñ bi nee na na ngeen soññ ñi ngeen daan soññ ci mbooloon mi ñu ñu ñu ñu defe ko nañ ko daan defe népp foofa it sëriñ bi wax ne mu ngi fàttali mbokki taalibe yi nekk ci kajoor googu yëpp di wax ne départ am na pëleen dëdd ak ndànd foofu yëpp fu waay ñëw ci ajjuma ji ci suba da nga fa jóge incha allah jëm si Touba ñu fas yéene dem Darou Salaam Bokiru Barga nañ ko daan defee ngaay it sëriñ bi nee na mi ngi soññ jëwriñ Modou Fall mu soññ mboolem talib yëpp ñu def nañ daan def fu mel ni dakaar sëriñ baa ngi soññ Mandak Fall ak mboolem talib yi nekk Dakar yëpp bàyyiwuñu kenn ñu def nañ daan def fu mel ni fu mel ni Bayaax sëriñ Badou am Bayax sëriñ nee na ñu ngi koy soññ ak mbooleem waa Bayax yëpp ñu def nañ daan def sëriñ Mor Ndiaye Ndiayeen Sërëx sëriñ bi mi ngi koy soññ ak mboolem waa Ndiayeen Sërëx yëpp ñu def nañ daan def euh, euh, sëriñ Maam Góor Badiane ca Mbadianeen moom it sëriñ bi nee na mi ngi koy soññ ak mboolem waa Mbadianeen gépp sëriñ mi ngi leen sonn bayut kenn waa Fisel Mbadaan li tàmbalee Fisel Mbadaan soob ba mbuxum mboolem gox yooyu yëpp sëriñ bi nee na mi ngi fay soññ seen jëwrin muy sëriñ Ousmane Tine ak sëriñ Aliou Tine ak sëriñ Kama nañ soññ mboolem taalibe yi nekk foofu yëpp ñu def nañ daan def mobilisé wu ñëw ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyub sëriñ Touba jóge ci buntam muy sëriñ Abdou Samane Mbacke moom sëriñ Chouaïbou ak fu fi jëwriñ mën a nekk ci biir réew mi bi nee na mi ngi lay fàttali liggéey bi di wax ne képp koo xam ne dégg nga kàddu gi ak ñu woo wala ñu ñàkk laa woo boo déggee kàddu gi na xam ne mooy sa woote mooy woote bi nga xam ne moom lañ daa woo sëriñ bi nee na mbooleem jëwriñ nii nga xam ne nag dañ daan jël ay oto di jóge fañ nekk nañ daan def nañ def noonu nañ def noonu ngir liggéey bi moom lu mu gën a gaaw rek moo ca gën ñi nga xam ne nag Touba lañ daan départ Serigne bi nee na ñooñu ñëpp nañ def nañ daan def muy daje si ci kër Serigne Dame Touré gii ci wetu jumaa ji ku mën a añ si nga añ si ku ko mënut it boo seppee sa loxo ci añ nga yegg si ca kër ga ndax fu ñu la di takkusaan oto yi départ foofu danañ jëm ci liggéey bi incha allah Serigne bi nee mi ngi ci soññ it waa bitim réew li ko tàmbalee ci Europe Asie Argentine Australie Amérique Afrique sëriñ mi ne na mboolem taalibe yi nekk foofu ñoom it taxawaay bi ñu daa taxaw ci liggéey yi Sëriñ Tuubaa yu demee nii bu agsee ci moom sëriñ bi ne na taxawaay yooyu ñu daa taxaw sant na leen ca la jàll waaye mu ngi leen soññ ci li nga xam ne moom lañ dëgmal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi woote baa ngoog mu nekk tool yoo xam ne sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad moom moo koy woote muy tooli incha allah mu jox ko njabootu kër Serigne Chouaïbou Mbacke ca bopp ba Serigne Cheikh Say moom Serigne bu Mbacke waaye alhaaji Serigne Niass Touré mii ngeen jàkkaar lool tamit woote mu jot ndigal ci kilifaam sëriñam Serigne Abdou Samad mu baax ma nga xam ne léppam xaadim rasul la mu jot ndigal ci moom ngir mu war a soññ taalibe yi bis bi nag samedi la incha allah waaye départ bi aljuma la kon dégg ngeen ko noonu ko borom baax waxee mu nekk woote bu am solo taalibe nag amul lu dul ndigal te ndigal dañu ne caabi la su ëppee du ubbi su yeesee du ubbi kon yaakaar naa ne fii li ñu fi mën a may rek mooy dégg suñ digali kilifa yi kon woote baa ngoog sëriñ baa ngi ñaan képp koo xam ne teew nga ci yàlla na sëriñ Touba faj say aajo kon bis bi incha allahu taala samdi lay doon foofu ci Daaru Salaam bokki Barga départ bi aljuma incha allah alhaaji sëriñ Niis Touré mu ngi ciy woo taalibe yi wëllëre yi xarit yi soppeek am di jàmm yi mi ngi ciy woo ñëpp tey ñaan yàlla képp ku ci teew yàlla na Serigne Touba Mbacke faj say aajo wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa